asalaamaaleykum yéen mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a saxoo di seetaan seen site internet murit point info comme ni ñu leen ko toppale woon ci waajal waajtaayu tabaski bi démb ñu ngi woon dara tey ñu ngi fii marché Ocass ñu fas indi li nga xamante si mooy waajtaayu tabaski gi dem ci jaaykati touché képp nga xamante si yaa ngi wëlu ci waajtaayu tabaski gi rek foofu lañ leen war a indil ma ak sama caméra mu topp ma ñu wan li xew ci ñu tay fekk ci fi wa Touba boutique textile ñu xam ba xam lan moo tànnaa ci tabaski gi di ci xëy tabaski moom bari na trop wa ah, yi so wa bi bari na wa perlage cheper persan ak eh, Dubai hmm, ak val ak am bassin de qui deuxième soir bassin Allemagne bassin jesner pense bi en plus soit perlage yi tamit bari na brodé autrice de simple bari na fi trop mais pour l'instant bu boo bu ñu demee ba si kanam nga xam see ni julli bi jege na maanaam xam nga daanaka client dootuñu bëri noonu quoi ndax ñi nga xam dañuy ñawlu ñooñu boobaa da dañu xaw a wàññi ndax téer yi suñ leen joxee seen i ñaw dañuy bañ waaye waaw jamono yi si ginnaaw nag moom ñi ngi doon ñëw daal. lan moo tendance ci tabaski ji nii. daal li ci gën a tendance dëgg-dëgg jasineer almaañ tili tili sañ yi comme genre yi. dañ ko jënd. genre yi. tise bi. ak mm-hmm. tise yi. ak yi mm-hmm. ak yi yi tisi sañse yi mooy genre yi mooy tisi xew yi mm-hmm. waaw yi mooy tisi xew yi bu dee jasineer yi mooy yii nii jasneer yi mooy couleur gipir jasneer jipir ak almaañ yooyu daal mooy yi fi gën a yi nit ñi macha allah sëñ Assane kon gis ngeen ne tabaski gi allah dox na ah, bu baax. client yi ñëw bu bu baax moom client yi ñëw est-ce que client yi comme ni nga xamante ne si noonu la bu baax amu ci ñoo nga xamante ne ngir safaan ba ngir jël di dem wala affaire si am waajtaayu tabaski nii ak client yi ni la nga ci kenn ko nga xamante ne ñoo ngi def sa fànn di si kenn jotu ko. voilà parfois nga gis si koo xamante ni da lay ne kii sawaan baa ko tax a jug mais tamit bu fekkente ne jot nga sa alal rek sànq sutura bàyyi mu dem quoi parce que liggéey moo ñu andi fii tamit. noo tudd. man Xaadim Lo laa tudd. Xaadim Lo. waaw ñu bi nga ngi sant yàlla baax xam nga wax yàlla tabaski bi moom il faut gi dox ndax man maa ngi nii doo gont nii sax ndax xam naa damay fanaan ci marché bi ndax téyeer yi may ànd ak ñoom ci guddi gi di waajal tabaski bi daal waaw ah. téyeer yi ngay àndal di leen waajal tabaski gi di fanaanee jaay ma ci marché bi parce que waajtaayu tabaski gi ah. kon yaa ngi gis sa bopp bu baax ci café gi ak waaw waaw maa ngi gis sama bopp ndax ah, yow ma ci café gi donc ndax maa ngi ak citron ak meew bu daaru salaam meew moo xam ne nii meew mi day am lëng xewar ak loora boo ko naanee dafa baax ci fatiguement général ak yaram bi mett ak yëpp dama koy jaay encore nag di ko jaay détaillé waaw merci beaucoup waaw man maa ngi tudd Fallou Dieng Fallou Dieng tay nak di doxantu woon ba fi ci marché Ocass set li nga xamanteni ci moy mooy tabaski mhm. ñu doon laaj ba xam fi ñew fi di butu kër xalé yi nak fekk ci la fi nak fekk Fallou Dieng mu yànj mi nga xamanteni mi ngi def robo xalé yi machallah allah ñu doon laaj ba xam xalé yi ñu ngi gis seen bop ci tabaski bi waaw fi mom machallah allah wax dëgg yàlla moom yëre yu bax amna fi qualité yu bax amna fi fi mom Touba mom ñëpp xam nañ ko léegi kër xale waaw ñun bagage yu rafet yu rar yu am qualité ta bax lañuy jaay daal tamit boo bëgg am na fi daal yu dëgër am na fi. a waaw njëg gi moom wax dëgg yàlla séerul moom parce que dama naan njaboot moom li baax ci moom mooy li sakkan ci posam te li sakkan ci posam mooy maanaam nga jënd qualité parce que tey boo jëndee qualité li nga jënd dina yàgg ak yow mais xam koo xam ne dafa néew doole tey bu jëndee loo xam ne njogaan la bu ko même bu ko jëndee lu yomb tamit bu suwaa mu yàqu mu bëgg a jëlaat xaalisam jëndiwaat day metti ci moom. waaw sàcc yi waaw fii moom fii yi dañ koy daw moom fii moom ngi fi am na caméra yoo xam ne gis moom fi moom boo joxee dix mille ne cinq mille laa joxe moom day leer naa moom daal léegi nag yaa ngi ciy sabab après période tabaski bi mu waaw marché bi de moom nii marché marchandise yi jënd nañ ko nii teg ko mais dara instant yi ñu ngi toog di xaar client yi mais dara demagul dara jaragul instant yi ñu ngi nii toog nii dara jaragul. waaw doxagul waaw doxagul moom. avec tabaski gi nii client yi gisagoo kenn. waaw gisaguma kenn instant yi ñu ngi toog di xaar ko dëkk bi moom instant yi war nañoo génn ñëw jënd si ndax marché yi si man dem instant yi xaalis boobu xaalis koo xamante ni jëndoon na xaalis gën dencoon na xaalis jënd na ko bagage toog di xaar. nga tudd. waaw maa ngi tudd Pathé Ba. waaw Pathé Ba yaa ngi daal di xalaay nii placé daal yu naaj si ñu doon laaj ba xam tabaski gi nii noo koy dundee ak événement bi bi dañ ñu ngi koy gérer ci jàmm wax ñuy jaay mais client ñu ngi ñëw mais dañuy fay prix duñu fay lu baax demaat bon ñu ngi ci daal di gérer mais pour le moment doxagul daal des na de yow daal bu ma déggee sax dafa mel ni moment bi ni moom daal di doxagul daal waaw daal di doxagul doxagul ni ñu ko doon xaaree aj nag maanaam ba client yi yéen leen di dawloo non c'est pas parce duñu aj prix moo amul tamit ak crise sociale yi ñu toll tamit yaakaar naa xaalis amul moo tax ak crise financière bi ñu toll. yaakaar naa bi dafa sori tey la xaalis amul affaire yooyu noonu. je pense bien que loolu la la. waaw Modou Ndiaye mu mel ni dafa lu yéen taximaan yi dafa lu leen metti ci dëkk bi ba tax ngeen di ko ñaxtu lan moo leen naqari ba tax ngeen di ko ñaxtu fii ci dëkk bi. ah soxna si loolu moom boo ma ko laajee dama ciy sawar lool ci tontu la li ñu naqari moom bari na trop ñaar amuñu tëli bu baax ñaar beneen point bi ci toppaat mooy ñaar ndox mi bari na alkaati sonal nañ ci sonal nañ ci dëkk bi chaque jour ñu jàpp ñu jàpp koo xam te ni teguñu ko fenn ci dañuy dagg suñuy droit droit yi dagg chaque jour dañ koy dagg te teewul duñu duñ amul leen loo xam te ni dañ koy manqué ci oto yi amuñu aw yoon bu baax. te te moo tabaski gisaguñ suñu bopp gisaguñ suñu bopp moom waaw ndax commencé gu doxagu dara ñu ngi nii xoolal. taxaw boobu ba léegi ñu ngi nii taxaw amuñu lenn loo xam si yem nañ ko. mais est-ce que yokku ngeen paas wala yokku leen. non ñun duñu yokku paas ñun duñu yokku paas yi ñun tarif bi fi tarif bi doon rek lañ koy teg dégg nga waaw bu waaye nag bu tawee moom yoon yi baaxuñu mënuñoo xam fu ñuy jaar suñu oto dañuy gaare kenn du liggéey bu xasee taw rek jeex na gaare la ñuy def dégg loolu moom nekk nañu lekk na sun loo xam ne lu ñu métti la te baax a baax ngeen def mbokk yi comme niñ leen ko digtale woon démb ñoo ngi woon daral tey ñoo ngi woon fi marché Ocass gis ni leen indi ci waajtaayu tabaski gi dem nañ ci borom tissu yi jaaykatu dàll yi jaaykatu café yi ba ci tissu conteneur yi bàyyiwuñ kenn ni lañ koy fas yéene ànd ak yéen ba tabaski gi jeex tàkk incha allah rabbi merci beaucoup ci beneen numéro ak ci beneen thème